Malamba ya nga lambay biram du mbéer ma ca mu tee ko fi ca gën gi pax ca gën gi pax teel foofu ca gën gi pax Malamba ya nga lambay biram du mbéer ma ca mu yaa ja rat ca gën yaa ja sax yu tëj yaa ja rat ji ndax yaa ji waagu ñaay eh ñun sunu doole sunu xarit sunu jaaxle sunu xel daal ñu kontaan nit du ma ku man sa morom duma. ay waay gi teg gi teg ar moomin ar gay moomin eh sa xajaa ma xajaa bul jaar ci kii jaara ci man mi ma gay na njaay yaa gay na njaay ma gay na njaay yéen réewoo leen